nañu lu nekk ngir mu dakkal grève de faim bi waaye Ousmane Sonko ak jébaane a gisee ak yi ndax tax na ba Sonko teere ji hôpital principal Cheikh Bara Ndiaye dem réanimation Pape Alé Niang mujjee urgence Hannibal Djim moom it dafa crise ba ñu yóbbu woon ko infirmerie Le Quotidien nañu Ousmane Sonko donte def na malice ba ñu évacué ko hôpital principal terewul grève bi moom nañu ca tey ndax keroog samedi rek moom Ousmane Sonko ndékki na ba kël maître Branco di xowaan mi ñu jàpp keroog samedi ca gànnaar anki dina kay xii nañu ko ndil ci xëtamu njëkk ci juróom-benni fan ci la ko gaa wër enquêteurs yi ci seeni laaj dañu ko wax mu ne ab espagnol la du français jot na sax gise ak consul Espagne bi ci Sénégal bés bi le jour di ñu fàttali ne moom avocat bi di Juan Branco ca Rosso Mauritanie fa la ko jàppe mujjuloon gaali loo ci bëggoon a génn réew mi ñu gàddu ko indi Ndakaaru yóbbu ci rëbës ba mu fa duggee ba léegi nag nanguwuta lekk aw ñam dugg ci gémmiñam nanguwul it ñu andil ko avocat bu koy jàppale meerub Sàngalkaam kaamit bés bi la jour nee nañu mi ngi ciy ñoññol ak yoon ndax dañu koy tudd ci mbirum Juan Branco Soleil national nañu procureur bi gën naa tëral dossier bu Juan Branco libération nañu beneenu procédure moom la parquet bi ubbi ngir moom Juan Branco waa Mauritanie ñoo ko jàpp jébbal ko waa DIC ñu ànd ak waa BIP indi ko Dakar yóbbu ko ca kaso bu rëbës keroog samedi lañu ko fa dugal ay boor yi deux heures du matin ba ko enquêteurs yi fàttalee mandat d'arrêt bi ñu gàll ci ndoddam ba tegal ko ci li ñu koy toppee libération nee nañu li leen Juan Branco tontu mooy seule la lutte libère ba mu waxee loolee ba noppi nag tegaatu ca leneen leneen li ci yam libération nee nañu mooy maître Babacar Ndiaye mi ñu jàpp ci coow li keroog àjjuma tuumay moom la ñu koy toppee libération xëy toppi tànki Branco fa dugg ci réew ba génn muy Banjul di Kër Njaayloo Lac Rose quai de pêche ne nañu ñoo nga ciy tudd benn Taleb Sow bu FRAPP France Dégage ak maire bu Sangalkam di Alpha Bokar Xuma ñu gën koo xam ci Pape Sow Juan Branco ak i mbiram ni ko journal Les Échos gisee mooy patas bu tàng jër bu nekk ci loxo état bu Sénégal bâtonnier bu Paris ak syndicat gi jaboote avocat yi ci Sénégal ñoo ngi sàkku ñu libéré ko féexal ko ñi féex jamono ji ñooy Karim Meïssa Wade ak Khalifa Ababacar Sall Sud Quotidien xëy di ñu xamal ne yoon wi tax ñoom ñaar ñooñee mën a am sañ-sañu faddu dara ci réew mi yoon woowee xàllal nañu leen ko keroog ci assemblée nationale député yi woote nañu modification yi ñu indi ci code électoral bi soleil national le mandat ak journal l'info ñoom ñëpp xëy di ñu wax ci seen xëtu njëkk ne kii di Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall léegi mën nañoo fàllu mën nañoo fale Faye Mansour moo xëy amee xët mu njëkk l'observateur moom maire bu Saint-Louis bi doon it ministre transport terrestre ma nga fay def waxtaan wu yaatu ci biir journal la tribune ma nga fa ba tey moom Mansour Faye ndax candidat la am déet ci candidature bi Benno Bokk bi nee nañu waxagu ci lu leer keroog daal ci ndaje mi président Macky Sall la woote woon ca palais de la république ngir ñu seet ana kan jiital ci biir Benno Bokk Yaakaar moom Mansour Faye neewoon na fa candidat la président ne ko na ko retiré waaye waxul ndax da koy retiré am deet li ko naqari bi nee nañu bokk na ci li ñuy dendale dendalee candidature bi ak njabootu Macky Sall gi ba bëgg koo tuddee candidat de la belle famille ba tax am ñu ci bëgg a jaare ngir di ko song ñu songaat l'observateur xooli fa mbiri Ali Kouyaté ubbil yéenekaay bi Ali Kouyaté mooy waaji fi songoon ab multiservice ca marché central bu Mbour ak fetalam ba faatoon fa ñaari nit ñu di ngañ siise ak Njaga Njaay moom Ali Kouyaté l'observateur mi ngi ñuy wax na muy dundee ca kaso bu kees ba ñu ko tëye décembre 2022 ba léegi abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér wóor aju ci réew mi ak ci bitim